Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. mbokk Jolof kontaan naa lool kontaan ci seen teeru di leen sant di leen gërëm di leen masawu coono ndax kuy xaar démb ba tey te ay mag a ngi ci jotaay bi kenn bougéwul kenn demul fenn loolu doy na wone engagement doy na wone seen cofeel waaye su ma ñëwee ba fii tey danaa leen xamal ne seen doom bi ànd ak man di liggéey tey di ministre de l'intérieur di seen maire muy Aly Ngouille Ndiaye am na mbégte ak contentement ci liggéeyam rappelé na ko nakk na ku am engagement ku farlu ci liñ koy dënk ku am cawarte ak xam-xam ndax boo leen xoolee jaar-jaar yi ma ko jaarloo ci diggante 2012 ak tey jii dana wane parcours bu am solo ministre de l'énergie et des mines ministre de l'intérieur ah ci wetu ministre de l'intérieur bi ci wetam Abdoulaye Daouda Diallo yaakaar naa ni kon doomu Jolof boobu en tout cas am na satisfaction ci liggéeyam kon Ali gàcce ngalaama continuel ci taxawaay boobu te xam ni bëgg na en tout cas ci sa liggéey maa ngi lay gërëm itam ndax xam nga président de la république boo ko mayee cadeau dafa nekk lu lu garaaw <laughs> wax dëgg yàlla waaye dafa xool loo xam ne bu ko defee wax dëgg yàlla dina ma neex muy lii mu def ci fasu naaru góor boo xam ni ah moom lañu ñu tàmm tànn ko def ko muy suñu raaya parti ndax xam ngeen ni xoore pucc moo nekk ci alliance pour la république sama mbokk séeréer yi naan o xooxle pis mu andi ko muy fas bu rafet ah, a ngi ko si sant aussi ndax teraanga kenn du ko delloo te itam nekk na lu mu dugg lool lu dugg lool sama xol jërëjëf Ali jërëjëf waa Jolof département bi yëpp xam ngeen ne ñëw naa fi ñëwaat fi booba jotaguma nguur gi di wër mënuma woon xalaat ne jamono jooju nii la Jolof tumurankee woon ci ay yoon parce que dem naa fii ba Labgar dem ci kaw dem ci wendu béy dem fi gox yu bëri bu ma koy lim dana dana dinaa fi fanaan waaye yoon bi jógee daara di dem dans l'arrondissement de Dodji nekkoon na yoon bu jafe mu yoonu Labgar diggante Linguère gi ak Doli nekkoon na lu doy waar dem naa fi car carñi dañ doon réer ndax doo gis trace yoon da ngay dox ba ci kanam dugg ci ñaay bi dem naa fi fu ne ci département bi waaye alhamdulilah bi nga xamante ne tey ci diir bi ñu tàmbali dindi nañu maanaam maral ci département bi te de kanam la jëm ñu ngi indi lumière ci village yi kanam la jëm ndax loolu dama ko def muy programme national parce que waratuñu toog ba tey jii mu am ay dëkk du la am courant dëkk yi du la am ndox loolu dafa bokk ci suñu ay priorité Jolof nag jàpp naa ne ni ko Ali wane am na ci lu mu jot a am kon bu ñu fi yàlla bàyyee incha allah daañu mottali yéene yooyu yëpp ba nga xam ni fii day nekk Carrefour muy Daara muy Linguère muy toute la région de Louga parce que dem bi ak dikk bi dana yomb te loolu tàmbali nañ ko ba pare.